man nag li ma leen di bëgg yii yëpp xew ndax tey su ma nettalee waa jël tudd man dafa nekk ci sama biir xol dama wut numéro boobu saaneex moo am wut numéro woo ko mu ñëw ndakaaru ma taf ko ci sama xol jàpp ko non du ma yeggal parce dangaa def ndakaaru ay dégâts yi jeex sama doom di jàng wax jàngee wax saa neex boole ci nag non lu ñu wax accu leen bu fa soli devant bu baax a baax a baax